da danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi télévision Futur Média mbokk yi ànd ñun ñu ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte delu ci ak yeen ci seen émission Faram Facce euh, Faram Facce àllarba la lañ koy amal ci waxtu bi muy émission bo xamni liko li ko euh, koy fàttali euh, bokk na ci Faram Facce tolluwaayu réew mi ci walu actualité li ci gëna a itam di walu politique ndax ku ne xam na ni politique mo ngank lu ëpp ci li doxal réew mi muy ci walu tagat yaram muy ci walu wergu yaram muy ci walu koom ak wàll yépp ku ne xam na ni politique mom moy définir. vision bi nga xam ni mooy jëmmal ak taxawal yéene yooyu nga xam ni am nañ ko ci biir réew mi ak doxalinam loolu nag mooy li sabab faram fàcce euh, tax ñu ci euh, am ay gan gan bu nekk itam ñu jàpp ni dina mën a gindi askan wi euh, ci ponk yooyu nga xam ni dafa yittewoo wàllu actualité politique tey nag ñu am ci mbégte bu yaatu di ci recevoir Bougane Gueye Dany moom nag ku ñu ràññee la taskatu xibaar la woon itam nekk homme d'affaires boo xam ni xam nañu ko ci biir réew mi waaye itam am nañu yaakaar ni bokk na ci mbër yi taxaw ngir laaj réew mi moom la ñu fas yéene dalal tey mbokk yi euh, ci seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média bugaan ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay sant di la gërëm Pape Ngagne ci invitation bi maa ngi lay sant bu baax a baax a baax. Bougane Gueye laa wax mu nekk tour boo xam ni dafa xaw a dafa dafa ndax dafa laal leneen lu dul sénégalais Bougane Guèye Dany Bougane séeréer yi xam na ni turu séeréer la mm-hmm. euh, géy gi moom géyuk Sénégal la mais fa ñu askano ñun ay naar lañ mm-hmm. mais euh, suñu maam dafa àndoon ak euh, yi li njëmbat mbóoj dem xare je crois que loolu moom moo ñu boole ci askanuk naar parce que dafa des ñu jox ko fa soxna. dafa des fan. des ca Trarza. ok mooy ca ca gànnaar. ca gànnaar d'accord loolu moom moo indi wàlluk naar gi. Mhm. Euh, suñu waa kër ñu ngi fu nekk ci senegal ca Sokone fii ci Géejawaay euh, ca Ndar. Mhm. Euh, doomu Ndar boo ne ko dëkk. Vous avez la rue de France doomu ndar la du dolli ndar et ñun 114 rue de France lañ dëkk donc euh, bougan Gueye Dany bi c'est un surnom bu ma samay euh, moroom à l'école euh, au lycée Charles de Gaulle ma ko doon bañ ba muy dañeel ba tey mu lang ñu def ko diminutif bolé ko ci dàkkental gi muy dani d'accord donc Bougane gi Gueye gi noonu la mhm. dani gi euh, moy ni ma lako expliquer d'accord d'accord euh, dafa am solo ñu ñu taxawoon xeyna na tuuti ci Bougane Gueye Dany euh, mu wéral ni amna na lu mu laale ak ganar du non la ah? Voilà. voilà mu jité ben mouvement bu ñu wax gëm sa bop mhm. lu ko sabab gëm sa bop xam nga gëm sa bop xalaat la tur la boo xam ne ay boroomi xam-xam mhm. ñoo toog ci ndaje ci waxtaan ci péncoo réew mi kenn ku nekk génne sa xalaat ba ñu jàpp ne jaadu na parce que réew mi ñu bari dañuy am yenn xalaat yu ñuy wéyal mhm. ñu ne ndax ab sahélien ab sénégalais mun naa wu yóbbu socialisme ñee ni libéralisme ñeneen ñi ni communisme ñeneen ñi ne ay trotskiste ak et cetera et cetera ñu ne loolu yëpp ay idéologie yu ñu importer la ñu jëlé bitim réew ñëw bëgg ñu ko forcer ñun africain nga xam ne euh, tekki wut ne li dox fële rek ca bitim réew na ci réewu tugal yi war naa dox ci suñu réew parce que euh, idéologie yooyu yëpp booy xool fa ñu ko doxal ba mu indi fa njariñ dañu nekk ci ay société yoo xam ne ay hmm. société nucléaire la hmm. papa yaay doom ak xaj bi ok alors ñun fii ñu nekk une société communautaire jàppalante dimbalante taxawante euh, sutura muñ lan lan moo ko wutalee ak idéologie yi nga fi fekk lan moo ko wutalee parce que bii ku ne ci ñun gis na ci boppam et bii ci biir réew mi la soqi ko maanaam gëm sa bopp ku ñu ko wax gis nga sa bopp hmm. mais mun nañ la wax ne socialiste nga nga ne bokkuma socialiste waaye kuñ ne gëm sa bopp ak foo mën a féete ngay libéral ngay socialiste ngay trotskiste buñ ne la gëm sa bopp yow gis nga ne philosophie la boo xam ne bu nekk ci yow la. d'accord parce que bugguloo tey contraire ba ñu teg ko ci sa kanam te xam nga li am solo mooy. Mhm. Euh, mooy bëgg sa réew. te dama ne boo bëggee sa réew rek faw nga gëm sa bopp parce que dañuy wax xubbul watan maanaam gëm sa bopp. ci jaamu yàlla la bokk ci jaamu yàlla la bokk. Mhm. et kon yaakaar naa ne am na contraire boo xam ne boo ko dawalee dafay tekki ne bëgguloo sa bopp. ok kon li am solo mooy gëm sa bopp. mais bëgg bëgg bëgg naa xam dama la laaj dama ni. lan moo ko wutale ak yi fi nekk nga ne ma c'est parce que yi fi nekk dañ ko jegaani yi fi nekk dañ ko importé dañ ko importé. Mhm. tey boo ko doon indi ci kàllaamay tubaab. Mhm. wala ci benn idéologie lan nga ñu mën a jox lan la gën a jege libéralisme la gën a jege socialisme la jege gën a lan la. sénégalais la gën a jege. nanguwuma lool nanguwuma libéralisme ma socialisme sénégalité laa nangu maanaam du ma wuti lenn fenn lépp lu ma soxla mi ngi ci sama biir réew bi non attends cest da nga bëgg a dugg ak man ci benn philosophie boo xam ni dafay xaw a doy waar mën nga ma wax sénégalité mais ci biir sénégalité mais soo ma waxee euh, soo ma waxee par exemple euh, bennoo wala nga wax ma ñoo bokk dara mais ku nekk xam na ni Sénégal seen lépp benn la mais loolu dafay dugg ci biir socialisme kon boo ma boo bëggee dàq socialisme wala nga bëgg a dàq libéralisme du ma mën a comprendre lan nga fi bëgg a indi. li ma fi bëgg indi encore pap Ngagne mooy kaddu gëm sa bopp. waaw doonut lu ñu jéggaani lu bokk ci ñun la lu kenn ku nekk di dund la ci ñun. te kenn ku nekk bu doon sa sago xam nga ni gëm sa bopp mu jiitu ci lépp parce que ba ci yonent bi alayhi salaam suñu borom bi muy wax ak moom ci amana rasul daf ko wax ne ko gëmal sa bopp ba noppi doog a lu nit ñi li nga nekk kon gëm sa bopp mhm. ci ñun ni ñu koy doxalee mais yaakaar naa du indi bopp sa bopp mënu mënu koo doon parce que gëm sa bopp c'est un choix de vie. ndax li la dama sa c'est un choix de vie. Mhm. gëm sa c'est une philosophie. c'est pas tout simplement un slogan. xam nga boobaak léegi nit ñi ay slogan la fi d'accord mais ñun dañu bëgg indi en une philosophie. waaw euh, mu nekk ben appel à l'action. Mhm. bu ñuy kenn ku ci réew mi mhm. pour ñu comprendre ne li défar réew mi mhm. kaddu ku nekk ak loxo ku nekk da ci wara a nekk boroom xam-xam yoy bi ñu dajé di tan baat bi est-ce que ñu won ni du fi gan Manam amna ku ñu ko xamé won mu yor baat bi ba ñepp rañé ko ci baat bobu mhm. ndax ranké xam-xam motax ñu dal ci baat bo xamni ne nañ ko fi dégg wala lan motax lan mo indi lolu xam nga euh, gëm sa bop c'est une philosophie universelle et tay buma jakarlo ak yow ne ko gëm sa bop nga Donc, wax le contraire j'ai lu ton livre j'ai lu ton parcours je sais que tu es un grand intellectuel pour moi intellectuel du diplomation qui est déterminer intellectuel parcours intellectuel capacité de recul honnêteté là aussi honnêteté aussi. capacité de recul acte d'analyse honnêteté là aussi c'est important capacité de recul acte d'analyse ok donc ak mandu aussi mandu aussi absolument voilà bu nee tey gëm sa bopp mm-hmm. c'est une philosophie universelle mm-hmm. tey boo xoolee saret yi ñu ngi ciy bind gëm sa bopp taxi yi ñu ngi ciy bind gëm sa bopp salon de coiffure ñu ngi ciy bind gëm sa bopp léegi mbootaay bi ma demoon seeti ca ICOTAF mbootaay mi gëm sa bopp la tuddee seen bopp am na ay mbootaayu jigéen yoo xam ne tudde nañu gëm seen bopp yàgg na amna ci sax defena écurie mbeur bu tuddé bopam bàyyi ma gëm sa bop donc c'est juste pour dire que képp kuy aspirer ci lu bax képp kuy aspirer ci lo xamné mën na la jëme kanam. nga baña usurper. non usurpation amu fi. ah kay gëwuma loolu. gëwuma né usurpation amna fi parce que de manière très claire euh, gëm sa bop nekkut lo xamné ne. gëm sa bop moy baf yofu jambour non gëm sa bop kenn momu am jom. am fulla wala fulla ak fayda wala jom ak fulla fii lañ ko fekk suñu ay valeur maam la suñu ay valeur u ancêtre la valeur la yu fonde réew mi valeur la yu bokk ci réew mi man cheikhul xadim laa gëm bi mu demee ci géej gi dellusi si dane du baatin du wilaaya gëm-gëm la kon nit il faut mu gëm boppam ñun ay jullit lañu nee naa la ci amana rasul suñu borom ci boppam bi muy wax ak yonante bi daf ko njëkk ni ko gëmal sa bopp kon gëm sa bopp nit mënu koo féetewoo te yaakaar naa ne nag bu ñuy wax Pape Ngagne gëm sa bopp ba yegg si ci Bougane nga xam ne figure la bu ko mën a symboliser dafa raam jóge ci suuf ñaaj ba yegg ci kaw jàll te kenn jàllewu ko xuus te kenn puusu ko nekk reporter ñaaj ba tey nekk propriétaire d'un groupe de presse. c'est-à-dire yow li yow li ma li ngay wax nii ma dégg nga wax ko ma gis nga def ci benn genre téléfilm xaw ma est-ce que yaakaar nga ànd na ak suñu culture aussi est-ce que loolu ci ni ñu xamee suñu culture euh, ci wanewu la ci lan la bokk de dix mille à 400 cent milliards euh, kenn jàppalewu ma kenn buuxuma tu penses que loolu lu ñu war a mën a bàkkoo la. Euh, yàlla si boppam dafa fëgg dënnam. yow da nga yalla est-ce non dama ne non lan moy yalla dafa feug dina dama dama dama la bëgg wax ne waaw encore une fois mhm. li am solo waaw du jëmmug bugaan mhm. li am solo moy mhm. yene ji buugan am ak fa buugan bëgg jëm xam nañ ko askan wi

dama ne. waaw terminologie. bu ñu lay wax naan la par exemple suuf su sutante dañ ko jàll. ma ne ku ko njëkk jal loolu laa la laaj suuf bu sutantee dañ koo jal ku ko njëkk jàll. donc man je dis fexe ba jalal sama bopp ci loolu laa nekk dama la wax de manière très claire ba ma ko waxee 2013 la ak léegi parce que dañu nekk ci réew moo xam ne dañu ta gaaw a tilimal nit. Mhm. dañu gaaw a salteel parcours nit. Mhm. duñu nangul nit. performance am parce que tey Pape Ngagne ña mu bokkaloon classe bu ñu ko gisee mu nekk un journaliste émérite dañu naan ah nangam sangam lay am de mhm. parce que tey fi nga yegg mhm. ñoom bu ñu ko nangoo

non attends non non c'est parce que tu m'as posé la question man nga posé man nga directement donc moo ma mais te la wax nous ñun ñoo mhm. ñun ñoo def. def dem lañ d'accord c'est important président. Euh, Bougane ci bëgg ñu gën ci taxaw sa candidature. Mhm. sa dir nak il faut nga waxat nit ñi nga lett leen wala nga firi leen sa di nit ñi aussi du ño xamné ne da nga leen di foy parce que lo fi woté ñu né ma nga grand théâtre ñu ne téré nañ ko ko ñu ne feulé ñu ne téré nañ ko ko ñu ne xaar yalla ñepp taxaw di la déglu nga nan 500000 lay laaj 1 million sa dir lan moy sa problème pour nga wax sa candidature nit ñi xam ah. lan mo ci lan la lan moy problème bi xam ba xam da ngay nek candidat wu do nek candidat papa ngay mhm. lolu wax ju leer la yakarna ne ne euh, wax joju mu ngi suñu ginnaw mhm. Bougane day nekk candidat loolu moom wax jooju mu ngi suñu ginnaaw loolu ñi ñi xalaat waxatuñ ko su nekk nii kay li ñuy wax mooy Bougane ko waxagul non ma ne li wóor mooy mais Bougane moo taxawagul wax ko fan non ma ma ma ba ma mayee ma ñëw rek dinaa la expliquer li ñu bëgg a wax xam nga dafa am lu am solo le Sénégal est un grand peuple mhm. nous avons une grande nation Sénégal waruñu koo caaxaane et man loolu laa gëm li ñu nekk di def c'est un pan important de notre histoire et c'est du sérieux lettuñu wala nga firiñu bopp bi ñuy létt dafa njàmbi non du philosophie non non non non xoolal euh, nekkuñu ci wax ci boo ma dégloo président euh, xam nga lu ma bëgg bugaan li ma la wax aussi lu leer la sa candidature laa déggagul nga génne ko sa gémmiñ loolu laa xamul lan lay nuróol aussi Pape Ngagne euh, buy bu tojut du jëriñ allez-y d'accord allez da nga ne. Mhm. ma létt la wala ma firi la. non man kay waxuma man ñi nga xam ne ñoo lay xaar. ma yaa posé question bi voilà euh, ma ne la bopp ñi nga xam ni foo woote ñu si la ko. te mais mënuñu fexe ba ma wax leen lu ma nopp boo noppiwul. may ma ma yeggale d'accord doo xam mu fu ma jëm ma baal ma ak ah, allez-y alors mhm, mhm. bi ñu war a bopp bi daa njàmpe kon pour nga létt ko faaw nga waajal ko. et tu ce laa nekk Pape n'oublie pas que j'ai fait 67 000 kilomètres pour produire ce document 67 mhm. 000 kilomètres pour produire ce document ce document résulte d'une écoute attentive des populations sénégalaises kenn ku nekk ak le cas de Jakarta a daf ci participer nappkat bi daf ci participer baykat bi daf ci participer chauffeuru taxi il daf participer professeurs d'université bi daf participer pilote avion bi doivent participer avocat etc. c'est pour vous dire que toutes les couches de la nation doivent ci participer pap Ngagne Sénégal nit ñi sa candidature. boo ma dégloo rek. may ma mais mënuma la ko déglu nag. ci nga bëgg ma ko bëgg ma parce que aussi man dama mënul comprendre depuis bientôt des ay presque ay mois ngi nii ñu ngi ngi yaa ngi tâtonné ci ci ci candidature bi. soo demee Thiès ñu naan wax lu jëm ci loolu. xam am léegi wax ju am solo boo xam ne wax nga ko. Euh, dama ne la Sénégal nit ñi dañoo am importance. Mm-hmm. kon booy jóg di jëm ci ñoom faaw nga jox leen lu nit ñi mën a dégg. am loo teg seen loxo moo tax. ma produir document bi. ok teg ko ci seen loxo. Mhm. moo tax tey bi ma xëyee ci journaux yi gis boroom xam-xam bu mag di Ibrahima Sall économiste. Mhm. ne programme yi génn gum yépp ak li mu liir ci programme yépp programme mu gëm sa bopp dong moo ci réaliste moo ci réalisable dama sant yàlla. et ma delloo ci démarche ba ñu doon dem xam nga. tay jóg ne candidat la mo gëna yomb ñaata nit ñoo ne candidat lañu mais tay ñaata nit ngay dégg ñuy wax seeni wax diw da da nga déggati kenn nan la Bougane day demam du dem déedéet dañ ne dañuy wut 65000 signatures 77000 mm-hmm. signatures. man mané 67000 signatures su ko 67000 personnes suñ ma lé 1 pour la ci ay élections. Mm-hmm. élections yoyu duma ca grand bu bu silettement laa cay et comme je veux jouer les grands rôles.

gis nga démonstration bi ñu def xaar yàlla gis nga démonstration bi ñu def champ de course Thiès am na yeneen ak yeneen yuy ñëw donc nit ñooñu il faut engagement bi ñu wut ñun ñu fekk ko ci nit ñi moo tax bi ñu demee Thiès en 10 jours de collecte ñu def douze mille et quelques signatures waa Touba Barki démb yónnee nañ ñu presque dix mille signatures te ñu ngi continuer di di liggéey donc c'est dire de manière très claire c'est bon boo ma boo ma mayee ma yeggale la may ngay continuer xam nga dooni mayuma la nag yooyu tam dañuy faram-fàccee je vous en prie dama bëgg nga wax ma ci sa candidature loo xam ni lu nit ñi mën a dégg la parce que aussi dafay nuru leneen dafay nuru ragal la wala da ngay làmbatu wala lan moo xew ah. candidature bi dégg kan nga dégg ci potentiel candidat yi koo xam ne déclaré gul candidature am ku dul yow fan nga dégg fan nga dégg ci biir élection bii ñu jëm ñu lim ay candidat te boolewuñ ma ci ba ci sondage bi mu jëgéen bërki demb dañ ma bolé man ci bir sondage bi Bougane Gueye troisième position avec 14.32%, quelque chose comme ça wa man bu fekké né yow japp nga né man duma candidat non waxuma jàpp ah, non non yow yaa ko jàpp ma bu fekké yow yaa japp ni do candidat parce que ya ko wax bu fekké né non man euh, de manière très claire les choses sont très limpides à mon niveau pap Ngagne je vous ai dit tay politicien bu ko wóoroon day am 1 ci élection day dem ci élection Mm-hmm. man mané 1 pour jouer les grands rôles je cherche entre minimum 500 000 signatures. la déclaration elle est importante. non cette déclaration déclaration candidature de solo xam nga ñu ju nekk. war nga gën. day ñu ne xam nga euh, la amul kenn ci Sénégal kuy ne qu'il problème askan wi mom moko ko jog amul kenn kuy lam lamé ci Sénégal né gëm sa bop li leen tax jog moy changer ni Sénégalais yi di dundé amul kenn ci Sénégal kuy lam lamé ni yéne gëm sa bop moy sét nuñu def ba Sénégal am geneen doxalin le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres du monde des plus soutenus des plus endettés des plus corrompus loolu kenn du ko régler ku moy sénégalais yi ci bopam et fuñu dem ni nit ñi topé nit nit ñi am ci ñun yaakar c'est parce que tout simplement mhm. programme bi ñu leen programme bi ñu teg ci table ji mhm. nit ñi am nañ ci yaakar et buñ ci amé yaakar nit ki koy incarner motax et je vais vous faire une confidence papa Ngagne est-ce que xam nga gëm sa bop biñ koy bu gan waru ko won jiite parce que xalaat la gan am yéene la gan am dama dem gis ay kilifa yu bari wax ak ñom mais je me suis rendu compte que ku ci nek am lu muy moytu wala am na tiitaange wala ak ragal gu nekk ci moom ma jàpp ne fi jëm du pour man du pour yow pour sa doom la pour suñuy jarbaat la d'accord pour suñuy sët la mhm. et ñun bu ñu sacrifié wul pour suñu doom yooyu amul kenn ku koy def à notre place dama la dégg nga wax bu Ibrahima Sall wax ci sa programme nga yow da nga jël programme mu wax ci lu neex muy le muy livre solution bu Ousmane Sonko

et dara duko dindi. Lune ne fàng kenn du voilà encore mm-hmm. une fois. Mm-hmm. dama def une rencontre à Paris. il il faut pas que qu'on cherche à jaxase nos man ak nous avons de très bons rapports. mais c'est un sénégalais euh, s'il vous plaît c'est un sénégalais courageux. c'est un sénégalais qui s'est engagé pour redresser le Sénégal avec les Sénégalais. Mhm. vidéo Bobo d'un ko balancé, mais question de tout vidéo pi. alors xam man c'est des rencontres publiques. Mhm. la nuit amal et rencontres publiques quelqu'un a pris le micro ne Bougane gis nañu sa programme mais lu tax binduloo livre ma tontu ko ne mbindam livre day fekk ñay lire livre ba am lu ñu jëndee livre bu fekkee ne nit day wutub dépense amul lu mu jëndee livre c'est exactement ce que tu as vu dans la vidéo site internet bi ko balancé comme dañuy wut buzz dafa dagg uniquement ma réponse ne bougan déchire le livre de Sonko yalla def mom si bopam muy nit ku dal biñ ci waxe téléphone mune ma effectivement li nga wax ni, li moy exactement sentiment man bima amone et loolu la confirmé et comme ni ma lay wax rek. mais bi nga xamé ni bi nga xamé ni sentiment bobu nga am lutax nga don ci rek nga rectifier ci après. nga musuma rectifier non wax nga ni wax nga ci ak Sonko waxu la non non musu musuma rectifier dama ne.

ñooy wut. jaxase mooy Karim Wade ak Khalifa Sall. Euh, mooy wut jaxase. diggante mooy Karim Wade ak Khalifa Sall. ma ne. waaw man dama lay laaj. Euh, mboo ma mayee ma yeggale pam ngay ñu ngi wut jaxase diggante Sonko ak Bougane et yàlla xam na ne amuñu benn problème moi je je préfère que ñu concentré wu ci question yi mën a yitteel Sénégalais yi. Mm-hmm. question yi nga xam ne tey Sénégalais yi loolu la ñuy xaar.

67000 euh, km nga ma wax mom nga def. boko évaluer ci xaliss lu wara bari lay doon warul nek ben auto warul nek ñaari auto warul nek ñetti auto ci essence ci gasoil ci pérédium ci ci ci ci àll bi lolu ay millions yu dul jeex la budget bobu fan la jógee. Sénégal ëpp jar lu ëpp lool non wax xam lolu wéranté wuñu ko dama la laaj. Sénégal da nga wara Sénégal jaral na ma lu ëpp lool mais waxuñu loolu dama laaj budget bobu dama Bougane fan la euh yalla moom may dimbali man. waaw sama bopp. 67000 km nga ma wax. dama ne euh, fi may wax ak yow ni xeyna romb nako mhm. parce que rien que dimanche passé on a fait Bayax on a fait Bayax Silla on a fait Ndiar 1 Ndiar 2. on est allé à Taïba Ndiaye.

ma mën taxaw dila wax nan la centime nangam. d'accord fi la ko d'accord nga transparence may ma rek ma mm-hmm. gis nga transparence ci loolu rek lay dox. Mm-hmm. si tu te rappelles en 2012 quand on a fait une collecte de dons mu tollu ci 500 millions biñu paré man j'étais pas soumis à cette réglementation mais dama jël lepp luy document yobul ko Cour des comptes jël lepp luy justificatif transmettre transmettre dama ne la Sénégal bu doon x milliards ma war ko ci def pour sama ëllëgu ay jarbaat sa ëllëgu ay doom suñu ëllëgu ay sët jaral na ma ko du ma compter. xam nga man waxoo xam nga suñu borom non ma ne ma ne ma ne ñi lay seetaan di la dégg. Euh, Pape Ngagne nga jël autant d' argent Pape Ngagne la ñu bëgg xam. autant d' argent xaalis boobu. non xam nga xaalis ki mu jaaxal. waaw mooy ki jàpp xaalis leneen lu duy outil de travail. man gisuma xaalis man outil de travail la gis parce que xaalis bobu man mako ko je suis dans le privé je me suis battu boobaak léegi ay nit ay sénégalais lambda dañ may fekk ma taxaw ñu yëkëti seen xaalis jox dañ may fekk ma taxaw ñu ñëw yëkëti seen enveloppe bougan lii ñoo participer ci gëm sa dañ ñuy wo

tay fan lañu wara yegg ak sénégalais dama la limay jël def ci gëm sa sama alal man ci ëpp mais sénégalais lambda ñëw fekk taxaw mu soixante quinze quatre vingt mille marché occas fekk nañ ma fa yëkëti 10 mille francs, commerçant yëkëti 10 mille a sama loxo ne ma mako jappalé mais c'est juste pour faire comprendre de manière très claire que bi sama xaalisu bopp la suñu borom dimbali na ma nag teral na ma ba maa ngi terle kon lu ma sol essence wër réew mi waruma jaaxal 67000 kilomètres dama ne la 67 te fi may wax ak yow nii romb na loolu yàllaa ngeeg leneen lu saf lu dut kat lañ absolument euh, président Bougane dama dégg ci sa programme nga wax ni boo faloo da ngay jël avion bi réew mi Sangomar jaay ko loolu nga wax ah? mhm. loolu nga wax. absolument ok d' xam naa danga nga juum sax Sarène la au lieu de Sangomar ah roplaan bi ah? wuyu ma. président yow déglu. voilà euh, lu tax nga am xalaatu jaay avion bi. Euh. pour jël xaalis bi nga ci war a def. def ko ci njàng mi def ko ci santé bi. encore une fois. Mhm. Pape Ngagne ay nit boo leen yërëmul. Mhm. mënoo leen a dimbali. et Sénégal dafa soxla njiit bu ko yërëm. Mhm. suñu peuple dañu soxla njiit bu len di bayyi xel. Mhm. le problème c'est pas de jël avion jaay ko ou quelque chose comme ça parce que avion outil de travail la bu ay nit. jël yow xam nga ni outil de travail mané mané outil de travail la. xam nga ni du luxe. may may ma ñew rek outil de travail la bu ay nit jël féetewoo ko. te yamulo fofu da nga ni li ñu am ci ci auto euh, itam li nga jël 80 yi nga jaay ko. alors xam nga pap Ngagne euh, je crois que buñuy déglonté mhm. parce que ñi ñi déglu aussi dañu bëgg ñu jox leen explication yu leer mhm. cest que buñ né nee bëreet mhm. nga rof leneen mën nañ leen a jaxase ba lépp ci njaay mi la rek non encore une fois euh, dama bëgg nga comprendre ne balaa ñi ñu jiite di nekk ci luxe il faut ñi nga xam ne ñoo leen fal c'est pour qui ñoom ñuy avion de luxe aussi. Euh, avion luxe la ci réew moo indice de développement humain bu Sénégal on est à la 47 e place sur 53 pays en Afrique luxe la tu as un peu na quartier yoo xam amuñu ndox courant. tey Kër Massar. bugaan yow da nga bëgg a delloo réew mi ginnaaw may ma ma ñëw waaw parce que li may wax xamuloo ko ci réew mi. yow lan ngay wax nii man avion bi laa bëgg ñu taxaw ci bala nga may wax leneen. li may wax xamuloo ko. avion bi nga bëgg a jaay xam nga xam nga li may wax. xamuloo ko te yow nga xam ni outil de yow la mën a yitteel. parce que yow yaa xam luy mais ki nga xam ne day day dem di root teen yenuy goj di xëcci goj di yenu ay paan kooku avion yitteelu ko ki nga xam ne ci quartier Bawol gii. ci kër Massar pour mu jógee këram dem ci tali bi day yek ci saret kooku avion yitteelu ko ki nga xam tay ci biir Dakar gii bu 19h jotee ci quartier Tawfeex yakar day dem nelaw parce que quartier dafa lëndëm kooku avion yitteelu ko dama né lima ma gëm man moy nit ñi ci sen bop il faut ñu abréger seeni souffrance Serigne Cheikh Al Maktoum da doon wax né la démocratie ce n'est pas le fait

Euh, oto benn ministre sénégalais mën na jënd six oto yu ministre français est-ce que xam nga ne gouvernement Sénégal 76 francs lay dépensé ci sénégalais bu nekk ci wàllu wér-gu-yaramam weer bu nekk boo ko tegee ci at 912 francs la maanaam paquetu Doliprane la alors que ministre bi yor wàllu wér-gu-yaramam parc automobile am romb na 500 millions genn wàllu milliard man dama ne askan wi nañ leen yërëm et loolu ngay wax avion boobu def le problème. parce que automobile boobu def problème pour man askan wi ñu non c'est-à-dire nanguwuma man. non man xam nga fan laay man fi may waxee mooy bu fekkente ni da nga ni da ngay jaay avion bi dem ci vol régulier yi yow gouvernement say voyage mais yaakaaruloo ni loolu moo gën a moo gën a bëri xaalis que avion bi. dafay fekk nga jël fekk nga jël voyage def ko def ko activité. day fekk rek nga jël voyage def ko mu nekk activité xam nga bu fekkee ne euh, da bëgg nekk maanaam maanaam euh, nu ngi koy waxeeti mais xam nga réew mi ngay mi nga ba mi Sénégal est-ce xam nga réew mi nga xam ni ci ci ci nekk jegewul sax développement justement kon kay répondre nga sama question yow koy kon yow répondre nga sama question. mais réew moom yaakaar nga ni mën nga des ci biir réew mi do tukki doo dem. doo doo link ay relation waxuma la loolu doo def diplomatie do def dara doo dem doo ñëw. waxuma la loolu waxuma la loolu bu ma wax loolu lu ma waxul waxuma loolu je n'ai jamais dit ça Pape Ngagne dama ne tu l'as bien dit réew mu nekk ci sous-développement waruta nekk ci yenn luxe yi. ñi ji luxe bi mooy avion. buga euh, non mais non euh, mais xam nga pour man honnêtement gis nga ñi ñuy seetaan mën nañ ñu xeeb. parce que tey ñi nga xam ne ñoo dëkk ca village bi ñuy wax Ndong nekk ci Daaru Xuddos un village qui a 102 ans village boobu boo fay dem amul yoon amul courant amul ndox tey bu ñu taalee seen télé batterie di ñu seetaan nga nekk fii di wax waxu avion ñooñu dinañ ne mais kii ban réew la nekk. parce que man mënuma comprendre loolu dama la bëgg wax ne fi ma dem ci Sénégal ak li ma gis ci Sénégal. tax na yërmande ju ma amoon ci doomu aadama mu gën a yokk tax na lu ma doon def lu nekk lu ma doon def benn danaa ko dolli ñaar fukk parce que nit ñi nekk nañu ci ay situation yoo xam ne yéene woo ko yow sa doom te man yéenewuma ko sama mbokk donc pour man wax ji du avion yamuma ci avion dama ne ba ci injustice sociale bi am ci salaire ñuy liggéey dama ne nañ ko régler fonctionnaire fonctionnaire fonctionnaire 80 auto, il n'est yi bire-président de la république bien sûr pourquoi ab Bouigine, buy 50 autos, wër pour là pourquoi faire nit bobu di génn fi Sénégal 50 auto wër ko bu France Angleterre wala nangam nangam day romb kenn du xamné ne moy romb kenn du xamné ne romb moo tax bu ma gisee yenn saa yi njiit tubaab yi li nga wax ni jiitu tubaab yi ñëw li nga wax ni bu nañu bañ ñu xeeb ñu yaakaaruloo ci sa xalaat bi nga am ci jaay avion bi ñu xeeb la ci ci xalaat xam nga lu tax du duñ ma xeeb parce que damay liggéey pour Sénégal ci situation bi mu nekk ñu génn ci dem ci beneen situation gis nga Pape Ngagne euh, képp sëñ Tuubaa dafa wax ne képp ku lay xañub xam-xam ku réer la te ku lay réeral la ci yërmande gi mu yegg ba ci na fa firru minhu mu ne boo ko seenee dawal gis nga malheureusement ñi ñu jiite dañoo fexe nëxas suñu xel yi nëkk ñu ci benn situation boo xam ne ñun dañ ci maanaam situation wu gént rek lañu nekk pam ngañ dama bëgg liggéey ba Sénégal dootoo fi déggati loolu ñuy wax consultation médicale gratuite dama bëgg ñu liggéey Sénégal ba dootoo déggati mbootaayu jigéen yu taxaw naan nu jox ñu financement ba ñu leen koy naxee parce que ñi fi ne lañu liggéey loolu lañ ci jublu xam nga réew mu mel ni Allemagne au lendemain de la deuxième guerre mondiale dañ ko yàq ba mu yàq yàqu yaxet waa Allemagne dañoo toog ne waaw léegi ñun lan lañ war a def hmm. est-ce que dañoo war a yenn suñuy loxo di jooy wala est-ce que ñun dañu war a liggéey d'accord ba génne Allemagne ci situation bi mu nekk d'accord bi ñu ñu génne Allemagne ci situation bi mu nekk créer ay milliardaires yu bari. mais ni milliardaires yi amee noonu le pauvreté bi bare. ñu def taxaw seetlu ñu toogaat ñu ne ah jaadu na kat ñu defaat une distribution redistribution des richesses. ba tey fi mu ni indice de développement humain bu Allemagne mais moo gën a kawe ci ca Europe. et loolu mais ndamu kenn ku nekk ca ña nekk foofu la. Mhm. liggéey boobu Pape Gagne dafa am solo. Mhm. tey fexe ba doomu Sénégal bi la muy yóotu mu mën cee jot ki amul faju mën a faju ki am bëgg yoon am yoon mhm. ki amul courant mhm. bayti njaay bayti njaay mhm. dëkk bii di bayti njaay dañ leen sampal ay lamp cour ay lamp dañ leen sampal ay poto juróomi at a ngi nii bi ñu leen sampalee ay poto ne leen dañ leen di indil courant ba fi may wax ak yow nii au 21e siècle au 21e unième siècle c'est un village qui est à moins de 150 km de la présidence de la République. d'accord utilité avion bi rek dama la ci exemple. un exemple bu ndaw président fédération euh, sénégalaise de football Augustin Senghor demander pour président abal avion pour ñu Soudan parce que match mardi vol régulier bi match compliqué mais avion encore une fois yow yaa ngi xalaat bi bokk xanaa joueur bi ma lay wax nii rek nga xam ni dafa war a xam nga xam nga man li ma gëm match yoo xam ne ay match ma gëm mooy balaa balaa match international day fekk sa biir am dara ki biiram amul dara xalaatul warul dem warul football non dama ne ki amul dara xalaatul match international ki nga xam ne buy génn ci village am ci saret lay teg jabaram ji nga xam ne dafa nekk ci digg digg diggu digg neuf mois mu war koo yóbbu mu mucc mu teg ko kooku amul problème problème mu avion. d'accord wa kayar yi nga xam buñu bu dañ leen di teg ci auto pour yóbbu leen ci benen dëkk pour faji leen. ñoñu amuñu. amuñu problème yow bi mais dama dama ci gis lu lu paradoxe parce que. aéroport bi ñu tëj ci sa programme da nga ne da koy tijji. dama koy ubbi di jaay avion di tijji aéroport. non lu tax lu tax non loolu la bëgg nga wax ma. ok merci paradoxe boobu la bëgg nga expliquer mako parce que aéroport bi ñu tëj da nga ne yow da koy tijji. encore une fois. li nga li nga Faté. Mhm. mooy da nga jàkkaarloog quelqu'un qui est un opérateur économique. Mhm. da nga jàkkaarloog ko xamné ah, présenté naa la ko. dama moo man da nga jàkkaarloog ko xamné c'est un opérateur. léegi maa lay déglu du ap politicien. ok man duma politicien. moi je suis un acteur de développement. mënuma comprendre aéroport international Léopold Sédar Senghor ñu def ci liñ ci def ci al def ci liñ ci def ci milliards. Mhm. yow nga gis ne ba bi ñuy déménager aéroport bi ñu ngi koy réfectionner. di ci def suñu xaalis tay ñu un aéroport bobu dañ koy nous mhm, mhm, mhm. kérok bi taw bi ba aéroport Diass fan la vol yi doon wacc dañ leen détourné ci ñaata yeneen réew. fa lañ leen fa alors mais pourquoi nous war continuer ci situation boobu. aéroport Léopold Sédar ñaata alal lañ ci def. yow 30 minutes ngay def ci avion Dakar. bo yegsee Dakar nga def 45 minutes djougué jass pour yegsi wat Dakar et puis nak buñuy waxanté deug dëgg. yow réew yu ma ne non mané dem nga bitim rew non déggoo ma de gis nga aéroport yi boo ma mayee ma yegg rek pap dama né rew yu bax yépp waaw dëkk yu bax yépp ñaar ñett ba ñenti aéroport la ñam aéroport yi nekkul ci biir dëkk non mané ñaar ñett ba ci ñenti aéroport la ñam mhm. rew yu bax yépp am nañu ñaar ñett ba ci ñenti aéroport donc man lima gëm moy aéroport bi mën naa jëriñ Sénégal non. c'est-à-dire man ni ma tonto ci avion bi moy ni nga exemple bi nga joxe ci àll bi jafé jafé ñuy jankontel mais loolu yang ko wax ba pare. mais aéroport aéroport day créer richesse wala xamuloo ne aéroport day créer richesse lo loolu yow xamuloo ne aéroport day dugal xaalis est-ce que xam nga aéroport jas bi presque pour 85 aéroport bi aéroport Léopold Sédar da nga ni avion présidentiel du mais c'est un c'est un c'est un poste de charge. ay charge avion présidentiel dugalul xaalis dégguloo li ma la wax ay charge la loolu la gëm man lima gëm encore une fois moy lima la wax man gëwuma débat wu avion présidentiel man débat bi moy Boy, bi nek ci réew mi amul issue amul xalaat ba yaayam di jaay oram di jaay takayam pour di jox nan ko demal bitim mhm. réew parce que fofu mo gën nat ak ni jur dom nexé nga mën jël sa takay jaay ko jox ko niko pour mu dem libi wala mu dem traverser Méditerranée bi bakkanam mën caa des situation de désespoir bobu yobou nit ki ci situation bobu loolu la bëgg ñu corriger ko hmm. et ci loolu la nek d'accord kon bépp moyen bu mu mëna am buy permettre sénégalais bi que mu nek dans des situations yu koy permettre mu vivre dans la dignité ci la nek président demal euh, Touba Bougane s'il vous plaît demal Touba est-ce que dem nga Touba ci ñetti fan yu mujj yi dem nga Touba dem nga ci yenn gox ci banlieue bi ci ñetti fan yu mujj nga gis nit ñi ñuy dunde ak ndox. Pikine laa dëkk. Pikine nga dëkk mais dëkkuloo fuy taa foo nga dëkk ci Pikine taawul il faut ñu waxante dëgg mais am na ci ay gox ci yëmbal ak ñoomin seen yoo xam ne boo fa yeggee di nga xam ni nit ñi jafe-jafe yi ñuy dund nit ku leen yërëm dong moo leen ci mën a génne. boo demee Touba ak Touba ni mu day ak li tuuba représenté nga gis ma gis benn vidéo. ak lo xam man dama ko dundal sama bop nit ñi nek ci yenn situation yi nek ci yenn euh, situation de désolation yi. mais gisso ci amélioration. inondation bi gisso amélioration. lan moy amélioration bi. gisuloo nii wàññeeku na. gisoo ni wañeku na lan lan lan moo mais bi nga fi def SOS mbënd mi leen. ci xaalis bobu ngay wax non ni ndox mi melone est-ce que melaat na ko. kañ la ko gëj a am parce que yàlla dafa soti wut ndox man mu ni toll bu ko soti wot bu ko soti watone ñu wat ci nañu newoon xam nga euh, pap Ngagne il faut ñu nangu ne gis nga réew pour nga dimbali sa askan il faut nga yërëm leen fi léegi yërëmuloo leen doo leen génne ci situation yi ñu nekk et man dama am benn xalaat am benn gis-gis boo xam ne li ma jàpp mooy ñi ñu jiite du ñu dugal mukk xaalis ci lu nit dul gis je vous donne un exemple regardez cité góor gi

alors que assainissement faut beaucoup ci réew. assainissement faut beaucoup ci lo xamné da fay améliorer cadre de vie. d'accord xam nga tay buma la waxé né indice de développement humain Sénégal mo ngi 47e place. Mhm. xam nga c'est la qualité de la vie. Mhm. qualité de vie bi mom lañuy mom lañuy nat mhm. inondation yooyu daf ci bok waaw bugaan tali yi daf ci bok bugaan may ma insécurité bi daf ci bok parce que tay ñak sécurité moo tax suñu domi ñu leen di rendi ñak sécurité moo tax sécurité, suñu yaay yi ñu N'y di agressé ñak sécurité moo tax tey bari na lo xamné kenn mënu ko def et quand tu regardes dans ce document j'en ai parlé est-ce que xam nga né Sénégal n'a pas de plan d'orientation stratégique pour la sécurité nationale est-ce que xam nga lolu xam nga est-ce que xamoon nga ko xamoon naa ko lay déglu mais c'est une catastrophe mhm. c'est une catastrophe que tay Sénégal lu day dëkk bu day ni Sénégal. Mhm. ak li toll ak la menace terroriste nu mu nekkee ci àdduna Sénégal amul plan pour la sécurité intérieure. Mhm. c'est un c'est un souci c'est une catastrophe c'est juste pour te dire lii ay borom xam-xam ñoo ci gëstu ay borom xam-xam ñoo ci waxtaan ku nekk sottanteeg sa morom xalat mhm. ba ñu ne kat japp nañ ne bokku ni ci 19 points ñu moy 19 points yi jubanti Sénégal waye bokku ni ci 19 points yi nga xam ne mën naa Sénégal d'accord président Bougane est-ce que xam nga ni mandat bi ci constitution bi 5 ans la yem ñaari yoon nga koy renouveler absolument yene bi yëpp lu ci mën def la nga yaakar mais euh, nguur état continuité da ngay def li nga mën def bayyi keneen def d'accord man loolu la gëm ok et ça veut pas dire également que boo ñëwee mm-hmm li fi nek yëpp dara baaxu ci non non non parce que aujourd'hui su ma jëlee en 2019 mhm. mais le PSE du ma ko sànni PSE da nga koy améliorer continuer ko c'est-à-dire mënuñu kenn ku nekk bu ñëwee indi plan wu boppam parce que nag nguur kenn état kenn du ko doxalee noonu mhm. am na loo xam ne defoon nañ ko fi nee naa y avait euh, le plan Sénégal horizon 2015 xam nga kañ lañ ko lancé woon. Mhm. en 1988. 88 xam nga kon moo nekkoon ministre du plan. ok c'est feu Djiboka. Mhm. et ñoom ñoo liggéeyoon ci plan horizon 2015. Mhm. et loolu plan la boo xam ne plan bu amoon njariñ la. d'accord donc bi ñuy ñëwee xëy na bu ñu sukkandiku woon ci plan boobu danañu mën a rectifier lu bari. d'accord et je dis encore une fois man bokkuma ci ñuy wax ne lépp dañ ko fiy dindi. non on est une grande nation. voilà nous avons de grands intellectuels. Mhm. Mhm. ay nit ñoo xamné ñu xam nguur lañu. Mhm. am luñu liggéey la des faaw ñu continuer ko. bolé ko ak ñun yini ak doxalin ak xalaat am. ngir luy défar Sénégal. Euh, Bougane li nga wax ci PSE est-ce que vous jox deug ñi lay jigni, euh ñi lay da ngay ak président Macky Sall PSE buma ñëwé li fi nekk duma ko fi jëlé dama koy continuer baat bobu nga wax est-ce que nekkul. xam lu lu luy jox deug ñi nga xam xaw nañu ñaaw nañu njort. ci ci ci yow ak président day day wane sama deug rek man Macky Sall gisewu ma ak moom. non waxuñu gisee non man man nga ko bañ a man nga ko bañ a gis. gis ku gis s'il vous plaît euh, Pape Ngagne. c'est c'est une question qui est très sérieuse. ok donc je crois que il faut nga bayima ma tontu ci lolu yow journaliste nga. Mhm musuma ma gis ak Macky Sall mosoo dégg nit ñi la gis na ma ak Macky Sall mosuma am acquaintance ak Macky Sall au moment où je te parle toutes mes sociétés je dis bien toutes les sociétés qui m'appartiennent au moment où je te parle ont reçu des courriers des impôts de la douane ou etc etc pour des missions de vérification wak nangam nangam wax ko ci olof nga baal ma wax ko ci olof bépp këru am bépp ah, société buma taxawal bi ma commencé ak léegi mhm. bi ñu génnee programme bi te wax ne ñiy liggéey ci ministère de l'économie et des finances yenn gratification yi yenn indemnité yi ñuy jox yenn fonctionnaires yi ñu tegul fenn mm-hmm. ma ne dañ koy xool dañ koy revoirat bi ma ko defee ak léegi mooy yi ñuy jox inspecteur impôt yeeg ñoomin seen ba ma ko waxee ak léegi amul sama benn société bu ñu épargné yëpp yónnee nañu leen ay mission de vérification dama la bëgg wax ne il faut que yéen ñi nga xam ne

amul ben état bo xamné bu président bi nga war gëm sa programme PSE e. euh, non non waxuma la lolu le PSC e, c'est un plan bo xamné dañ ci duggal xaalisu Sénégal boo ko jëlee ko ci mbalit ni suñu alal la man meluma comme ñi nga xamné ay politiciens lañu mais vision la mais ma rek mais ma rek vision la vision euh, la aussi euh Pape Ngagne euh bo ma mayee rek ñu yeggale dama ne mhm. bokkuma ci ñi nga xamné ne dañuy ñëw di def politique politicienne di wax di sanni man tay élève Sénégal bo xam dafa dugg ci classe ma jox ko instituteur sama yéene moy man ci sama réflexion moy ki dama investir ci mom man état dama investir ci xale bi naka lay récupérer sama investissement moy xale bi mu am liguey

Ah, okay. non, euh, euh, s'il vous plaît, euh, s'il vous plaît, euh, Pam Gagne, ce qu'on dit est important. <laughs> Il faut pas ngeen di jaxase xelu nit ñi. non yow yaa bëgg yow yaa jaxasoo ci sa bopp yow yaa jaxasoo ci li quand on fait quand waxuma man li ma li ma wax jaxase voilà quand on fait du journalisme mhm. faisons du journalisme mhm. quand on fait de l'opposition ou de la politique mhm. faisons la politique dama ne PSE xaalisu Sénégal lañ ci dugal loolu kenn mënu ko dindi suñu alal la sama alal la alal jiñ ci dugal dama bok ci ñi nga xam dañ ci duggal seen alal parce que samay société nga di boo ñëwee mais Pape Ngagne quand même may ma ah, Pape Ngagne Pape Ngagne da nga may may quand même ma yeggalé sinon ok bàyyi yow nga yeggalé je vous en prie baal s'il vous plaît je vous en prie parce que amna lo loo xam jaxase nit ñi la allez-y maa lay déglu merci amna lo loo xam jaxase nit ñi la ce que j'ai dit est très clair le PSE mom mi fi nek daf ci duggal suñu xaliss do ñew ne PSE baxul dama koy taxañ dama koy duggal ci poubelle bi gëwma loolu ñiy wax loolu populisme la waxuma gëwma loolu dama ne da ngay xool li ci baax nga continuer ko xool yow li nga indi dolli ko ca ngir mën a defar Sénégal Sénégal du benn nit moo koy defar Sénégal du ñaari nit ñoo koy defar mhm. Sénégal du benn président moo koy defar mhm. li ma gëm man encore une fois mooy ne réew continuité la que dafay am combine man ak Macky Sall man Macky Sall demalu ma fenn mhm. dama ne man Sall demalu ma fenn Macky Sall musuma defaral tarafatal ay ni mhm. du sama groupe de presse du man njit mi ma doon du kër guma jité du souf su ma jox du 1 franc bu Macky Sall mën musa def ci man kon gisuma lutax man may liggéey pour diko jox Macky Sall mhm. wax joju wax ju yàqu la ña wax ñakoy mhm. wax moy ñi bugan tiital xam nga sank wax nga ko nee nga bu mi mu ak légui mbolo mi koy top politicien limu bëgg loolu la ragal mbooloo mi may topp yaakaar lañ am ci man. te xam nañu ne non man man may ma ma ñëw rek waaw may ma yaa ngi bëgg a wax mbooloo mi lay topp man li ma wax c'est très simple boo ma may foo dem nit ñi nga xam ne ñi ngi lay déglu pour nga wax leen candidat nga euh, wax nit ñi nit ñi nit ñi ay nit ñi ngi fii yor parti politique ak leneen ak leneen depuis ay vingt ans mhm. ñoo dajale fukki nit d'accord kon tey man su ma jugee askan wi topp sama ginnaaw c'est parce que am nañ ci man yaakaar mhm. li ma bëgg nga bàyyi ci xel rek mhm. mooy Macky Sall

mais mbot niñ koy door du mom moo koy tànn du tànn ki koy mbot. Mhm. loolu la bëgg nga comprendre ko donc li ci nit ñi wax. lèr na loolu ña wax. ñoom la intéressé Bougane li nga wax leer na je vous en li ma bëgg ñu ñu taxaw ci moy ci ci opposition. wax nga ni do politicien mais da fay am solo aussi parfois euh, ci yenn combat politique yi nga xamni da fay friser un peu peut-être social muy kaawu Khalifa muy kaawu Karim ñu gis ci sa position su amé combat ci tali ñu gis la mais kenn du la gis ci lolu lan mo tax lolu aussi je suis pour des combats de principe Je suis la des def pour politique parce que politique dafa une définition étymologique mhm. Les politiques signifiaient Sénégal d'où la même chose les signifiaient France l'Italie. l'Italie. Mhm. man dama bëgg une nouvelle relecture des perspectives je suis d'accord sur des combats de principe bi ñu parrainage j'ai

ñi ñu def tay ji defon nañ ko fi ñom motax ñu né lolu mo waral ñu système bi fi nga ci. non je dis pour man. c'est motax nga non non encore une fois mënu ci mandu parce que ñak ci mandu motax mhm. man parce que je trouve que li ñu def Karim li ñu def euh, Khalifa dama gis né Sénégal rek. ngay gis ay nit ñoo xam ne dañuy wër dañuy wër dañuy nekk rek di yuuxu sàcc wëpp sàcc yi wëpp sàcc yi mais du ñu fexe mukk ba bool bi wala ba boutique bi kenn bañ cee sàcc yow ba nga ba nga jimmeek léegi da ngay dégg rek ñu naan Sénégal sàcc nañ fi nangam diw jiñ nañ ko nangam diw sàcc na fi nangam may ma ma ñëw rek. diw jiñ nañ ko nangam tarxis ci leneen dama la wax ci lu leer. cest à combat yooyu ma la wax. loolu laay wax nii. waaw doo ma dégg boo ma maye ma déglu nga comprendre dama ne sa kër boo fa dencoon xaalis bu ñu ñëwee rocc ci nangam di nga jël ay disposition ba kenn du ci jëlaat nangam. mais dama ne Sénégal rek ngay gis dañuy yooxu ub sàcc rek du ñu seet mukk nañ la ñuy def ba sàcc yi bañ bañ a sàccati. xalifa sàll jiiñ nañ ko ne danga jël nangam mu ne leen li ngeen may jiiñ man nii jox naa leen nangam ci caution ñu ne ko caution bi nga ñuy jox. un milliard huit lañ koy jiiñ mu ne dinaa cautionner deux milliards ñu ne ko li ngay cautionner intéressé wuñu dañ lay tëj kaso juróomi weer alamaan la juróomi million lan moo intéressé juróomi at euh, juróomi at mm-hmm. lan moo intéressé sénégalais bi jotaat xaalisam wala tëj nit ki ñaata mbokk nga am yow yoo xam ne sàcc nañu ginaar te mënuñoo dellu seen kër ñu ne diw yorel nga réew mi cent nangam milliards nga jox ko passeport jox ko avion mu génn réew mi nga dégg barki démb ministre de la justice naan la bu dellu si waatee ci réew mi de danañu fay suñu xaalis kon lan moo ñu intéressé récupérer suñu xaalis wala génn nit ki réew mi justice boobu ñuy fooye ok justice boobu ñuy fooye moo tax ci biir programme bi ñu ne le chef de l'État ne doit plus être le chef suprême de la magistrature d'accord parce que jàpp nañ ne kenn ku nekk ku ñëw mhm.

musuloo wax loolu. da nga ma dégg man ma wax non damay laaj. non damay laaj non nga ko wax wala musuloo ko. non da nga ma wax ko. Euh, d'accord deuxième tour bu ñu fa eggee. kan ngay jàppale. mais du ma jàppale kenn parce que man damay dem deuxième tour pourquoi may jàppale. man xalaatuma man li may xalaat. bugaan Pape Ngagne da nga may déglu. Ah, waaw doo ma wax loo lu ma bëggula wax. man journaliste laa comme yow. dama ne deuxième tour bu ñu fa yeggee man ku may àndal deuxième tour kay laay xalaat maanaam kan laay xëccoo jil deuxième tour. day nek euh, x y wala z man kan andal àndandool deuxième tour lay xalat mais man xalatuma kan momay may wala kan lay jàppale. deuxième tour yaakaar ni gëm nga yalla xamna ko loolu mënuma ci am doute. Mhm. mën nga japp ni mën nga dem deuxième tour comme mën nga fa baña dem. Mané, non xam nga Bougane yi ngay def dañuy dañuy wax dama ni deuxième tour buñu fa eggee yow demulo deuxième tour. est-ce que japp nga pour and pour jappalé ki nga xamni mo nek ci opposition bi wala Macky Sall ngay jappalé dégg loolu li ma la wax de manière très claire. Wow. je suis là pour combattre ce système wala déggoo li ma la wax pam nga di di leen déglu système bi Macky Sall ci la ñi fi nekkoon ak ña fa nekkoon ak ñi fi jaaraat ak ñay bëgg duggaat ak ñoom ñëpp ci lañu moi je suis là pour combattre un système système bi nërmeel sénégalais bi système bi def sénégalais bi yalwaankat système bi nga xam ne tax na ba nit ki bu ñaqee dootul tedd système bi nga xam ne da ngay gën di ñaq di gën di torox ñooñu laa ne loolu laa fiy jële ak ñi ko fi indi ak ña leen di suuxat ak ñi and ak ñom pourtant ci système bobu nga nekkee milliardaire ban système système bi ngay wax ni système bi ban système mais système bi muy environnement des affaires bi muy leneen je suis pas dans muy environnement des affaires muy euh, leneen Pape Ngagne bul bul daj bul bul bul jaxase xel mhm. dama ne mhm. moi je ne suis pas dans ce système politique xam nga man waxuma système non dama ne je parle du système politique qui aujourd'hui mo indi réew mi fi mu nekk déggoo man la dama delluwaat si li nga wax xam nga boo waxee loolu nit ñi danañ jàpp ne est-ce que du système bi moo tax moo am alal dama ne man damaa ñaaj mhm. dama jóge ci suuf reporter présentateur ba yegg fi ma yegg mhm. nekk ci yeneen business la ma doon def Sénégal ku ne fii gis na ko je suis dans la com j'ai géré Nokia en Afrique de l'Ouest mhm. j'étais le euh, euh, managing director de Grey International West Africa excepté le Nigeria de 2005 à 2009. J'ai géré des budgets. Par... mais non, mais balle, balle, s'il te plaît. C'est important. Non, li wax day jaxase xel. Non, non, c'est important. Non, dang may may ma yeggale parce que li nga wax day jaxase xel. C'est important. Parce que boné nee da nga nekk milliardaire ci système bi. Non, attends, attends. Attends. C'est pas vrai. Xam nga xam nga environnement des affaires. Ci système bi la bokk. Ni ñuy doxalé affaires yi ci dëkk bi. Lolu ci système bi la bokk. Waxuma la politique yooyu tam. Moi je parle. Musuma la dégg nga nekk député, musuma la dégg nga nekk maire, musuma la dégg nga nekk ministre. Donc xam naa ni système bi enrichir la. Je je je je vous concerne, Ok. votre talent, mm -hmm. euh, en tout vous êtes très polémique, mm -hmm. je, je, vous concède ça, mais j'aimerais vraiment mhm. que bo waxee dara nga may ñu ñu léral askan parce que da ngay poser ay questions yuy leunt xel mhm. parce que bo né ci système bi nga amé alal mëna naa xelu nit ñi dama lay dello ci lima waxone ne la musuma andak mais c'est bon musuma liguey l'air na itam. non leerul. non je vous en prie l'air musuma féeteeg nguur. l'air na Bougane. musuma andak ak ku ànd nguur. d'accord musuma liguey ci marché nguur. Mhm. donc luma am sama ñaq momako may. d'accord je suis dans le privé. Mhm. je me suis fait dans le privé. dama ne la da ma laaj ndaxam damay xex Macky Sall. ce que je fais c'est au-delà de xex Macky Sall romb d'accord système bi ci la deuxième tour système bi du fi ba deuxième tour deuxième tour budul yow Bougane ndax nga opposition bi nek fa nga jàppale ko. li la wax man en en premier. waaw man dem deuxième tour ci lool la nek. Liguey bobu lay def Ñak jariñu ak wax fayu li liggéey bi may liggéey xajul ci gaa yi liggéey bi ma nekk di liggéey xajul ci gaa yi mhm. dégg loolu li ma la wax man xalaatuma ku may jàppale man deuxième tour man maa ngi xalaat man kan mooy ñëw jàppale si ma man deuxième tour pour ma jëlee ñii fi nekk. mais xam nga di boo taxawul ne ku nekk deuxième tour ma jàppale la boo fa nekkee kenn mën na la bañ a jàppale. bariwuñu ñi mën a dem deuxième tour mon frère bariwuñu de. <laughs> mais est-ce que li ma lay wax dégg ko. mais ñooñu. ñi nga xam ne soo taxawul soo fekkee taxawuloo. potentiel yooyu. nga ni man deuxième tour kou fa dem dina la mais forcément lo li mala wax xam nga amna lo xamné pour man détail la et comme moi je suis un chef d'entreprise je préfère avancer sur des choses concrètes. Mhm. dama la wax de manière très claire Né le mon combat c'est d'enlever ce système mon combat c'est d'éliminer ce système mon combat c'est d'éradiquer ce système système bi bu ma ko fiy jëlee du fi ba Macky Sall mënu mhm. mais est-ce que système bi ñu le ko reprocher ci groupe de presse man damay déglu groupe bi.

donc lañuy def ci télé wala lañuy def ci radio man. mais yo, yow mais attends attends moi je ne suis pas un patron de presse. attends attends non da nga may déglu da may déglu. je ne suis pas un patron de presse dire aussi li ngay wax ni rek dafa dafa réconforté wul sax kat yi. duma len leen duma len ma mais parce que. j'ai xam nga si loolu loolu. mais parce que duma len du duma len seetaan mais oui parce que dama am lenen lu def dama nek ci benen liguey buma amone jot comme yow nek journaliste nga xam awma lenen luma liguey lu jakarlo ak télé beeg bi bu boba ma xol la def duma lire journal duma sétane télé duma déglu radio c'est exactement ça parce que moment yi nga xamné dana am jot bobu man ko man nga xamné awma aw ma jotu euh, samay dom kon propagande propagande bi ci D-Média xam yëguloo ko propagande gëm sa bop bi ci D-Média yëguloo ko yow yaa ko wax parce que le CNRA est là pour réguler si jamais. Euh, ñoom defoon nañu loolu xëy na CNRA dina dal ci seen kaw. mais yow CNRA yow tam xam na dégg nga leen. non mais je te dis encore une fois Pam Ngagne je veux que ñu wax waxu Sénégal non attends Pam Ngagne Pam ah. Ngagne Pam Ngagne ne faisons pas euh, euh, dans les détails xam nga malheureusement pour man des médias mm, Bougane intéressé wul Sénégalais yi li intéressé Sénégalais yi mooy dundu Sénégalais yi li intéressé Sénégalais yi mooy tey ki am ay problème ñu mën a lijjanti ay problème am. Euh. li intéressé Sénégalais Moi, tay, tey mu ngi jàkkaarloog ay nit ñu mu war a tànn naka lay tànnee ñi muy tànn nan la leen di lan mooy base programmatique bi nga xam war nañ ko tegal Sénégalais moi j'aurais j'aurais aimé véritablement que tu me poses des questions euh, techniques qui permettront aux Sénégalais d'être édifiés sur ce programme sur ces 19 points honnêtement mais pour moi, des médias c'est une entité comme vous l'êtes et kenn ku nekk mu ngi def liggéeyam ci wàllu presse mhm. képp koo xam ne am na lu mu ci def lu jàdd yoon am na ci gendarme boo xam ne mu ngi fi pour di liggéey ci loolu donc euh, nañu xuus ci ci ci point yi préférence nationale nga ni dañ ko war a def loi oui est-ce que jàppaloo ni itam macha allah réew moo xam ni macha allah réew moo xam ni mhm. dafa toll ci ci mhm. est-ce que yaakaar nga ni warul mën a ubbi ay buntam bitim réew ñew jappelé ko gis-gis bobu nga am est-ce que du gis-gis bu tënku d'accord gis-gis bu tënku nee la sank képp ku lay dëddaleeg xam-xam ku lay réeral du samay kaddu kaddu seigne touba dama la wax né la euh protectionnisme dafa am ci réew yi développé yépp tey Mauritanie gii boo demoon bëgg fa créer société il faut nga am un Mauritanien dans le capital Sénégal rek ngay ñëw bëgg créer société fu la neex nga jóge bu la neexé nga jóge Laos nga ñëw taxaw créer sa société yow pour sa bop. Dubaï Arabie Saoudite fenen ak fenen ak fenen. ba ci Maroc protéger ce, ce, sa réew wut né da ngay tëju déedéet mhm. je vous donne un exemple l'Éthiopie mhm est-ce qu'il y a un d'activité étrangers étranger investir dans les banques étrangers il faut investir dans l'immobilier étrangers il faut investir dans la grande distribution en Éthiopie étrangers il faut investir et aujourd'hui l'Éthiopie est en train de devenir la Chine de l'Afrique à cause d'une industrialisation légère extrêmement avancée Madame euh, euh, industrialisation mhm. ñu ngi koy mhm ay parce que tay usine doonatul loy def mu yëng mu ngand melni sokosin mhm. mais usine meun nga ko dugal tay ci bir keur meun nga ko dugal ci salon muy liguey normalement mhm. réewu Éthiopie fofu lañ toll donc motax ñu né fexé ba la préférence nationale dama lay jox euh ben hissa xoolal Ila Touba Ila Touba amul ben société sénégalaise bu participer ci Ila Touba

Mhm. bépp société buy duggati ci Sénégal di fi mhm. Mhm. il faut société boobu def transfert de compétences maanaam bu fekkee ne li ngay def amul ci réew mi. di nga jël ñaari société yoo xam ne da nga leen di tàggat. pour que yow boo demee société yooyu mën a defal seen réew xam nga Pape Ngañ. réewu Afrique il faut ñu comprendre né secteur privé. mais ndax compétence ci préférence nationale bi mi ngi fi. compétence mais mais loolu loolu planification la. xam nga loolu planification la moo indi tey suñu pétrole bi dégg nga institut bu nekk mu ngi créer ay filières naan ñëw leen métier du pétrole parce que waajaluñ ko. d'accord et pourtant xam nga mm-hmm. pétrole kañ la génn Sénégal. Mm-hmm. kañ lañ xam ne am nañ pétrole. 99. Mm-hmm. imagine 99 ba on n'a pas su lancer des filières. pour préparer nos cadres. au métier du pétrole. donc donc dama la bëgg wax ne rek réew buñ ko bëggee defar. surtout suñu réew mi il faut ñu dooleel le secteur privé. d'accord il faut ñu am ci biir Sénégal mën nañu ko defar 20 ministres. ñun euh, fi may wax ak yow ni non 20 ministres ci ce programme. non mané mom la laa lay wax ni dama dama lay léral né la ñun ci li ñuy liggéey. waaw nekk ñu sax ci 20 ministres. Euh, équipe bi ci liggéey ils sont à 17 ministres au moment où je vous parle. mais 20 ministres moo nekk ci programme non dama ne waaw mais dama euh xam nga lolu projection la prévision Nous ñun faire ce ba li ñu nous mhm. ñu mën ce def lu néew d'accord au moment où je te parle nos équipes travaillent sur les 200 premiers jours ñun liggéeyuñu sax sur les 100 premiers jours on est en train de travailler sur les 200 premiers jours. très bien mhm. quand un économiste Borom xam-xam bu mel Ibrahima Sall gis programme bi. Mhm. ne programme bi moo gën réalisable ci programme Nous mu jot ñun dañuy fierté parce que yéene bi c'était effectivement ça wax na ko mhm. li ëpp ci décision yi ñu indiqué mhm. mën nañu ko jël le lendemain de mon élection mhm. c'est-à-dire bu le bu ñu introniser le lendemain mën nañu jël mais bu boobaa revoir constitution mën na ci baña ñak. ñàkk absolument ah. parce que constitution bi il faut ñu revoir ko xam nga lu tax ñu koy revoir xam nga lu tax ñu koy revoir Sénégal président waratu fi nekk di bour di bumi d'accord xam nga lu tax ñu koy revoir Okay. Cette constitution nous mhm. avons koy jël nous tailleur koy daggal ay nit. ci mhm. constitution Si nous mhm. ak une modification 15 ans après elle est entrée en vigueur. xam nga 15 ans yow déjà mandat idéal. Donc, la donc yow ak loo mën faire.

est-ce que xam nga Sénégal moo ëpp alal Ita euh, euh, euh, Espagne pourquoi suñu doom yi di bàyyi Sénégal di daw wuti alal Espagne alors que ñun suñu réew li mu am France amu ko France amul or France amul zircon France amul phosphate France amul lithium France amul naaj bi ñu am ay nit góor ci suñu alal ay nit qui ci alal ji ak seen njaboot di ko lek ñi am di ils am ñi ñak di de di est-ce que loolu dañ ko war est-ce que dañu war a suñuy suñuy dans la débandade nekk ci ay jafe-jafe tey sécurité Sénégal sax mënuñu ko am on a dix mille policiers dix mille policiers pour 16 millions quatre Sénégalais fais le calcul tu vas voir c'est un policier pour 16 mille Sénégalais après on te parle d'insécurité après ñu ne la wuy xalé yi dañ leen di après ñu ne la wuy jigéen ñi dañ leen di agressé nga yaakaar ne loolu mënta nekk regarde récemment ce qui est en train de se passer à Daru Koudos. il y a une fuite de gaz au niveau des industries chimiques du Sénégal il y a des hectares ay baykat yu bay ba paré fi mu nekk gaz bi lakk na seen tool yooyu yëpp non seulement ñu ngi utiliser seen alal ñu ngi jël seen suuf di exploiter seen suuf gisuñu ci seen bopp waaye léegi ñuy wëlbatiku di leen tegi loraange mm-hmm. alors que ça pourtant le code minier prévoit ça mm-hmm. mais li ñuy tëral li ñuy wax ak li ñuy defal dama bëgg que comprendre ne dafa am benn fossé bu large mm-hmm. suñu doom yi sa doom bu doon sa sago duñ ko jàngal alxuraan sa doom bu doon sa sago duñ ko jàngal euh, wolof sa doom bu doon sa sago kenn du ko jàngal mag ñu baax ñi lutax ñu ñi jangal Faidherbe lutax ñu ñi jangal Mao Zedong lu kenn duñu Serintuba. Seydi Hadj malik jërëjëf lu tax kenn duñu jangal Serigne Touba. merci yaakar nga ne tay élève buñu jangal mhm. kun katiman bu Serigne Touba est-ce que dana génn di toji bus. Mhm. yaakar mbok merci beaucoup Bougan Gueye Dani lañ doon recevoir tey mu nekk euh, njiitu gëm sa bopp ñu am plaisir nag bu yaatu recevoir la Bougan. Euh, te am mbégte itam ci vraiment ci ci leeral yi nga xamni ne indi nga ko xamna naa nañu am beneen occasion bu gën a yaatu nga xamni ne dañuy jël 19 points yi par benn tay dañu néwon nañu faram fàcce rek mais inshallah allah dinañ ko gëna a yaatal bu ñu ko programme télévision bi mayé ci campagne yi nga xamni ne jëm nañ ko inshallah ñu gërëm la bu baax vraiment ci disponibilité bi mbokk yi mu nekkoon faram fàcce ak télévision Futur Média euh, ñu leen di jox rendez-vous incha allah àllarba ba di ñëw bu ci àllandee jërë ngeen jëf. trop c'est trop mbir mi dafa ëpp léegi. auditeurs d'accord nañ. bu ñu si jógee du auditer samay doom samay doom doom yi nga xam ne liggéey.